السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يين مبكي مبكو باس باس ياب خاليت ياك امدي جامعي مانغ لين دي جار من محمد سكمل بو شيخ سيد محمد المصطفى حفظه الله وايده وطال بقاءه دين وخني الحمد لله تي بوبليكاسيون بوم نين غي سونو مبكو الخليفه ابو بكر سك بويا دولكو انا دغ ما شاء الله الحمد لله نكو سي سانتي غرم باخ ندخ غيسنا نياني غيسنا ياب تخواي ياب دين وخني الحمد لله نيغي ني ala kulli xaalin ci jàmm ak salaam ci kattan yoon ak mbaaxam barki kilifa ñu ñu àndaloon ñëpp ñoom ñëpp ku ci nekk ñeenti ñëpp ku ne ñib nga seen kër ñu ngi si jàmm am ñu benn blessure oto ba nag bu ñu la waxee nit génn na fa doo ko mën a gëm waaye nag yàlla moom moom jaamam ñii réanimé ñi nekk ci dans la coma xëy na animation la bu yàlla def si ñun macha allah alhamdulilah di gërëm tamit waa Thiès bu baax euh, muy monsieur le maire ak doom nday Mamour Sarr ak ñoom euh, docteur Gaye ñoom ñëpp alhamdulilah ak soxna Daba ñoom ñëpp yal na yàlla barkeel leen taxaw nañ ñu yóbbu ñu foofu ñu examiner ñi nga xam si ni ñoo amoon tuuti fa rek entorse rek macha dàmp nañ leen xool nañ leen rajo nañ leen amuñu benn fracture donc alhamdulilah rabbi alamin yal na yàlla dolli sutura ak teraanga dolli xol bu fee xel mu dal koom-koom bu stable bu rek wërle musaluñ ci lépp lu yàq gor lu yàqal gor musaluñ ci xànckat faskat renkat waxkat su bokkul malakat yeekat narkat yi jaa ngeen jëf alhamdulilah yàlla na jàmm di yàgg Sénégal jaa ngeen jëf.